العزالق القدر وبالصعد بالفائز ما إلي الله وبسليمان نوح يونس اليزاي وزكريا يا يهود يا الله هارون يوسف ياسين وآدم آدم هدى وازل كبلي man la Ndeye Ba taalibe bu Soxna Waalo sant yàlla yonent bi ak Cheikhul Khadim di ñaan Soxna Waalo yàlla na fi yàgg te wér suñu digalee ñu jëf suñu teree ñu bàyyi loolu daal lañu ñu fas yéene dund ak moom di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ak njabootam gi ak ngóli mu jullit waaye di am mbégte lool si màggalu maam borom Touba gi di sant sunu borom it ba mu ñu booleeg soxna Asta Walo Mbacke. ana kontaan rek di ñaan yàlla fekke waat ay déwén yu bari di ñaan yàlla xéwal yi yokk lu ñu mën ren yàlla nañ mën déwén lu ko di ñaan soxna Aysatu Walo Mbacke yàgg fi lool yàlla na fi yàgg lool te wér. nañ togg lu neex dina bëri dina sakkan. te doom ji mu booyee boo ñu booleeg ñun ñuy Mame Faty Kébé ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant di ko ñaanal jàmm ak tawféex ndax suñu ànd ak moom rafet na torop yal na ko yàlla defal jàmm fii nag fi la ñay wi dee ku fi yendu añ rek ku fi fanaan reer. soxnaa la dafa doon sëriñ boo xam ne sëñ Saliou Mbacke mi waajuram sëñ Saliou Mbacke mi ne mooy doomu sëñ Touba mooy waajuram am fu mu ko féete lu na baddil ko li naan baddi ci murit sunu wàllu moom lañ ko defal ci kër baayam ma kër maam bon jafe-jafe ki tolof tolof macha allah duñ ne du ak ci àddina ndax jullit lañu jullit bu ne suñ borom moo ko yore yorelul boppam dara kër boppam dara mais sant nañ ci lool lool lool lool macha allah. waaw màggal gi moom macha allah ñu ngi ciy sant bu wér di ci bëgg lool. di ci gis tamit lu kawe suñu jot macha allah ci jamono toll metti na lool wante nag taw feex ak tay siir xéewal gu saawaan baawaan lañ fi gis ndax suñu sang bi ñu ànd mu nàddil ñu lool ba lépp lu ñu soxla rek yàlla suñu borom jàppandel na di ñaanal Fatou taawam bu ak magam ak seen bisu maam di la ñaanal yow mi taxaw itam ak mboolem kuy taalibe ci kër gi rek ku ci jóge fi rek na nga yok ba yok di ñaanal daaira bi nag daayira Padois bi ci ñom lay tambalé ñaan gi ba fu daaira yi ñam yam nak ndax ñom yalla dama ak ñom suma borom kër daan and ak seeni borom kër di liggéey mu jóge fi soxna wala japp ci sama loxo bolé ma ak ñom loxo ab sa job mi ak mati gajaga ma ñëkkat ak mati farilam ma ci aljana ja ba léegi bàyyiwuñu ma ñu ànd jëmmi soxnawaalo kenn ku ci ne sa bopp soxna waalo nga ciy gis ci sa moroom duñu xuloo duñu xeex te yàlla nun ko yàlla gën a téyel ba tënkal ñu seytaane bañ bañ koo def kon loolu ma sama première kontaante ci màggal gi bañ ko dalee def ak léegi léegi mu mat fanweeri at dama àndeek ñoom waaye daara benn bés boo xam ne mës na ñaaw amul te yàlla bu mu ñaaw sant borom bis bu màgg bi muy sëriñ tuubaa di bàyyi sëriñ Saliou di maamu soxna waalo Mbàkke fa tubaar fa kàlla macha sunu sang bi nu di ko ñaanal wér ak gudd fan yàlla bàyyee noog moom ndax fa tubaar fa kàlla macha allah ñëw nañ si màggalam maamam gi ñàkku nu fi dara jooyu fi dara fa tubaar fa kàlla macha allah yàlla naka yàlla yokk wér ak gudd fan si barke Serigne Saliou mbake baayam bu baax bi di ñaanal maam Fatou Kébé doomam di ñaanal njabootu soxna waalo Mbacke ñëpp fa tubaar fa kàlla macha allah yal na leen fi yàlla bàyyi sa yàlla bàyyi noog sunu sang bi yàlla may ko gudd fan ak wér. ñun ñii di ko liggéeyal tamit yàlla may nu wér gi may nu kàttan gi bay nuy mën a jógee Noison ñëw di ko fekk si fii di ko fi bàyyi di fi ñëwaat di ko fi fekkaat bu déwénee yàlla na nam bu ren na mee neex yàlla na mel na déwén fa tubaar fa kàlla macha allah. ndax ñun yàgg nañoo màggal seeg soxna Waalo booba day ay 73 wala 75 la woon ba nëgëni ñu xam ne nag yokkute am na bu baax a baax. tax yokk nañu ba yëg ni ñun yokk nañu ndax màggal gi boo gisee rek ak ni mu demee ni ak mbooloo mi ak kër gi ni mu meloon ak ni mu mel léegi rek nga xam ne yokkute am na. Sëriñ Tuubaa ci boppam moo ko waxoon ak mu ne day gën a kawe loolu moom te Sëriñ Tuubaa moom lu mu wax moom mooy li nga xam ne mooy li am te ku nekk xam na ni bi ngay ñëw fii dat nga loo xam ne. te it man xam naa ni man dana dem jamono joo xam ni nit ñi dana dem dana lu ñëw une semaine avant ci loolu la ñuy mujj waaw man xam naa loolu. ndax man li may yéem mooy kër gi moom daawoon ñàkk ndox waaw mais moom lu ma jaaxal mooy ndox am fi moom ndax robinet yi ci biir kër gi bi ci kër taatu néegu soxna si rek loo loo ñàkk ñàkk ndox boo demee day xel mais tey jii dara. daanaka sax xaw ñu am lu ñu def ci ñuru gi loolu nag mu doon loo xam ne li lu ñu war a gaaw mën a saafara la ndax kooku bu ko bu ko maanaam njiitu réew mi bu ko saafaraw rek ñun taalibe war góor góorlu ba jéem ci pexe boo xam ne maanaam tuubaa daal ba ñu ñàkkati ndox naam xanaa rek yokk ko mu gën a yaatu ku ci deful woon dërëm dool la ci def dërëm ndax kenn mbooloo moo man moo moo ëpp doole te ñun murit dañoo war a baaxoo jëfe ndigal muy lan Touba gi daal bu mu ndox te ak pexe bu ñu mën a def pour Touba bañ a ñàkk ndox daañu ko def incha allah. waaw ndax wax dëgg yàlla santaat suñu borom bu baax maa ngi koy wax mbokk taale bi keroog rek ñu ba ñuy sos daayira bi Touba euh, Patte d'Oie ba ñuy sos daayira bi Touba Patte maanaam kenn xamul woon luy mouridisme boobu xale yi ñu bari ci yéen ñi maanaam gane sewu leen woon àdduna ñu leen di ñaax rek ni leen di leen wax ni la le mouridisme n'est pas une récréation religieuse du fo du fowantu Sëñ Tuubaa du fo du fowantu amaana amaana taalibe bi dana am dana nit ki dana mel melakaan boo xam ne bi Sëñ Tuubaa moo ñëw moo koy feeñu def ci moom loo xam ne nii waajuram benn waajuram defu ko ci moom ndax dana ko jël fóot ka raxas ka ba mu set rek waaw firnde bi mooy sama mbokku taalibe bi ñuy wax daam ñaan ndax tey jii moom lu ñuy njaagare mooy njaag ndax ma ñu xamul dara Patte d'Oie daawuñu jàng ja mënuñu jàng ma ñu def dara moom moo ñu ñu sax ba tey jii ku nekk mën a ubbi kaam di jàng bay def kuréel di jàng xasida yàlla ak moom ñi waaw kon nag gone yi ñu leen di ñaaxaat di leen jokk ni leen nañu góor góorlu nga xam ni sëriñ Tuubaa fowul fa folul waate buñ ci jàppee rek amaana ren ba ndéwén boo ci nekkee yow te yokkoo da nga war a seetaan